naa lu bëree bëree bëri ziyaare naa leen sargal leen leen bëggee Aïcha teewaa rek si biir kër gi seen programme loo yëngu business profile laa wax man naa képp ku fi ñëw rek na am si lu muy yëngu rek ma jàkkaarloog yow léegi dama leen ay bàyyi rek suma gan gi moom mu nuyoo wax leen moom mooy kan ak si lan la mooy yëngu nuyu naa la. fii naa la Aïcha. macha allah thank you so ah, much ok Gambia asalaamaaleykum everyone ñuy seetaan Sahel network TV yëpp. man la seen doom seen raka seen xarit Njanko the CEO of Fabi by Njanko mm-hmm. yeah macha allah ñanko borom faab yi. ñanko kon loolu neex na trop macha allah euh, ñanko dañ bëgg a comme nga wax ñu lan moo la dugal si fashion parce que dañ gis ne ko foo gëstu rek ñan ko ngay sañse di def yu baax yi moom sañse moo koy bégal dañ bëgg rek nga wax ñu lan moo la dugal si wàllum fashion design. ok fashion dafa xam ne like dafa important ci nit ku nekk. Mm-hmm. ku nekk di dund ci kaw mm-hmm. neex. Mm-hmm. sañse dafa neex. soo toogee sañse toog si kanami télé bi. yig-yig boo dee am yow rek yaa ko dee mën so moo fashion dafa bokk si luy yokka réew mhm. luy développe réew mhm. so moo tax nit képp koo ya e mhm. ya xam ne yaa ngi eewu di sant yàlla rek war ngaa def loo xam like dafa fashion daf si bokk waaw waaw gisuloo képp kuy tukki sa réew bu taaru la muy bëgg dem réew bu taaru exactly so fashion dafa important trop waaw te ma bëgg ko Tadi mhm. situ insya insya allah Masya Allah. Lagi moo tax kon eh, wah nggak sih walum alam eh, mau tax nga bëgg fashion léegi yow depuis kañ nga di def fashion ba pare nih yang kau nih don def model. Lagi nga lulu loolu jublu si fashion design deh. loolu lihat si fashion la bokk mau buka lagi la nga réerala ñi seetaan parce Pas ñoom nyom nyom fi teg dañ may yóoni pour ma laaj la soo man fashion since mana lagi xale dama ko musa bëgga maa mhm. ngi remember intaxaw nisa, mhm. aman nisa, sax dina boobu cher yëpp su ma ñëwee rek xam nga ñëpp ñu ne waaw njàng ñëw na yooyu noonu waaw sanse dina yooyu noonu julli jot ma bugg a sanse bañ dem na ko ba suma friend yi su ñoo wala ñu am birthday nii xam nga comme wala ñuy génn any kind of programme mm-hmm. dañ ma call message ma seen ma nataal ne ma liyee diis mu ko boolee liyee nii te mm-hmm. at the end daf dee come out so good mm-hmm. you understand so ma jeexal high school ma jeexale high school si laa dugga into the modeling industry ma door model that was from 2000 2013 to 2017. Mm-hmm. after ma bàyyi nag ma bàyyi. Mm-hmm. after am ah, ma toog ma ne man maa ngi xam sanse mm-hmm. maa ko mun so why not ma def suma own thing loo xam ne like man la moo nekka man lii man maa ko moom. ku ma gis ne ña nga si jaar after dafa xam ne waaw yow kay macha allah mm. famille moom xam naa ne moom. ku ko ku ko ku ko déggee rek gis na la. mu ngoog <laughs> léegi ñu gis ne ma wax leen lenn rek si ñankos ku la suwaag la jógee nag. <laughs> kon xam ngeen ne sàcc ko daf ko doon <laughs> mu ngoog léegi ñanko ñu mm. gis ne comme képp ku yëngu si business tamit daf dee am yenn jànkuwante yu muy dund. Mm. léegi dama bëgg nga wax ñu what are your challenges yoo xamante ne yaa ngi koo dunda te mun ngi la métti léegi nga war a ñoo jox solution bi tamit lan ngeen luy def pour ñu faj ko. adi na fok na loo duga rek fok na am na jafe-jafe lo dugg parce que ñun si lu ñoo dox mhm. about fashion about yére mhm. foog na jafe-jafe bu si nekk bari na trop trop trop waaye lu la wax gis nga nit ki loolu si àddina mhm. just amal trust amal am gom gom ne li yow mën nga ko def so amé gom gom bo rek at the end daf dee turn out so good lulu nunu. comme luy ñew daf dee nekk lu baax daf métti nak because Afrika lañ nekk looy def foog mu am ñu la saboté mhm. looy def foog mu am ñu la xee mhm. looy def foog mu am ñoo xam ne lay bugguñ idea boobu noonu mhm. atoon waaye yow nit ki yaay believe ne lii mun nga koo def lii di nga ko def te incha allah da koo def loolu la mu ngoog waaye dañ dee gis tamit ne yow yaa ngi def si façon design yaa ngi yaa ngi yëngu si loolu noonu ñu gis ne tam da nga dee ñëwal jànxay di leen sañse ndax góor ñi tamit si leen bokka ba pare naka nga nekk famille it's for everyone pour ñëpp la mhm. mag ndaw xale góor ak jigéen mhm. yëpp lañ dee dox mhm. ñun ñëpp lañoo ñawal ku bugg a nice daal soo ñëwee rek dañ la dee defaral yéen macha allah mm. léegi nag leeralal ne gars yi wax na ne comme góor a jigéen mag ndaw ñëpp la muy yëngu waaye jigéen ñi nag jigéen ñi nag jigéen ñi nag waaw ñoo suma nga àndal <laughs> man loolu daf may neex jigéen tamit dafa neex dafa naxadee ñawal de naka nekk di dundee ak ñoom mm. léegi-léegi nga gis ñoo xam ne nga ñëw sax ñu ñëw nga ne leen déet bii nii Gambia courant bi noomalu mhm. léegi-léegi courant bi mhm. wala sa machine bi am problème wala comme something comme xam nga nga mhm. expliqué ko borom mu ñëw léegi-léegi nga gis ku xale bu ndaw ndaw ndaw ndaw ñëw taxaw wala lu ko ne te doo si mun dara ay sa nga mu ngi rek <laughs> léegi-léegi dama dee toog ba pare jooy su ma maam ma dee rek dina baax léegi ma dem ba sax nee na maa bàyyi. Mhm. affaire ma ne non. soo am na léegi-léegi tam nga dee waaw ah, léegi-léegi waaw waaw. su <laughs> xaalis bi du. boole ko si waaw ah, boobu moom ah bo mom su dugasee mom wa bo daf benn way tamit métti la way gum la rek so mhm. góomee ne lii nga ko def te li di nga ko def rek mhm. do dee tiit do dee ragal mhm. iya. so ñu lan la ñu ñang ko mëna wax ne support bobu la soxla pour jëmale fashion design am ba kanam ok man luma am pour wax gambien ci nañ jàppalante dañ dimbale wante dañ muñalante di ini wante jam, gis nga aisha industry bi ya dafa rëy ku neex mun na see def lu neex wa kay te we have a very young talent na ñepp ñëw na ñepp ñëw ñu jàppalante gis nga na pare ñuy ñu door tamit nañ make sure ñuy xool si ñu njëkk yi. waaw because man su ma am na ay mag am naa fa ay mag. Mhm. ay xarit ñoo xam ne ñu ngi woon si industrie bu ma ñëwee bu ma doon door dama leen call dama leen message ne ah man de lii lii laay dox bëgg naa ngeen jàppale ma bëgg naa ngeen dimbali ma. Mhm. te bu ma leen di fii ne ñoom tamit. dañ ma dee jàppale mhm. people like the Bagis design that's Mass Miso people like Cotton Fit Tailoring uh, ak ñu bari bari bari bari bari Aïcha moom sa tooma la moom tamit moom naa ko naa la boole moom sax mu ne wala Aïcha Aïcha <laughs> Skouchoué moom tamit yee moom tam waaye coton fit sax ñoom ñëpp macha allah ñoom ñëpp dinañ jàppe xam naa ne maas moom bu ñëwee fii moom fii day wàcc ba zéro parce que moom moom xam naa ne mooy ndey mbële bi loolu moom dina ma ne sa na nga ko te na mhm. ñoo xam ne tamit ñu ngi sa la ñan nga nekk di liggéeyal ndax yow kenn yaa nekk di liggéey di toog na di créer li ngay Ready di dagg rek di yak no man uh-huh. my am na ñu employ am na like two people uh-huh. ak man mu nekk three uh-huh. so man ma dey create ñoom wala man dey defel ñu ko ni then ñom ñom ñu ñaw ñu defal everything lolu mom oh, neex na torop oh. nga jël youtube mel ni ah, rek di créer because ñu ma liggéeyal yëpp su ku ma suma friend la they my friends they my comme ñuma jégué ñom la jël nekk di ligé ak ñom together mu ngoog léegi ku bëgg a jot ñànko nan la mooy def la noo mbaa ak sa sa pages yoo xamante ne képp ku la soxla rek foofu la muy jaar. ok man maa ngi on Facebook Instagram ak Snapchat. Mhm. suma Instagram bi is Fabby by Njanko. Mhm. suma Facebook bi is Njanko Ceesay sama contact yi foofu noonu rek naa la mun a xelal wala jola suma number. Mhm. loolu moom neex na mu ne ñoo ko Cissé man Cissé Koundaye nag aka ñoo mën a lekk léegi lan nga ñoo mën a wax si Cissé Koundaye <laughs> parce que xam naa ne Cissé Koundaye moom lekka rek la ñuy def non ñun Cissé Koundaye ñoo ko yor nag ah. na ñoo ko na ko nangoo <laughs> waaye ñoo ko yor nag ah. waaw Cissé ah. Koundaye léegi lu tax nga dugg si studio bi nga ne ñun dañ niroo te man saween la waaw dañ niroo waaw léegi xam nga lu ñoo def dañ koo bàyyi ak gaay comments yi ñu ñu ñu bind comments yi si suuf ñu xool waaye man xam nga kan laa lay jaawale boo dugg see Samba Posé ak Seexu Yafa. Ah, waaw man ñun ñëpp suma famille lañ yow Yafa moom Yafa moom suma siihandoon la moom. Yafa Mbadou mu ne dañ leen day jaawale sax ñoom ñu <laughs> moom suma siihandoon la ah. moom suma waay la suma nit la suma everything waaw macha allah. so léegi lan ngay mën a xelal yuut si ñoo xamante ne ñu ngi toog. ci réew mi am na ñoo xamante ne ñu ngi yëngu si dara. waaye amuñ comme ndimbal bi wala yoon bu ñuy jaar pour def dara. ok man lu ma am pour loolu mooy yuuti mooy nañ jóg. Mm-hmm. fii dara mu fi. Mm-hmm. ku nekk mun na fee liggéey mm-hmm. ku nekk mun na fee am teraanga ku nekk mun na fee toog am fi loolu ak loolu lu ma wuti si biti mm-hmm. nit ki soo bilivee ne foo nekk mun nga fa am yow loo fa bugga mm-hmm. jarul nga dem fenn yëpp bilif la rek àddina yëpp bilif la gis nga fii soo fi génnee nga dem feneen tamit te amuloo bilif boobu noonu ne yow mun nga am something soo demee nag the same thing la moo nekk I toog fii ñu liggéey suñ Gambie bi defaat Gambie mu nekk something else ñëpp happy loolu la loolu kay dina neex torop waa ñanko ma ma laaj la leena parce que dañ day gis comme ñeneen yi ñuy solu mm-hmm. dafa am koo xamante ne moo de nekk rôle modèle am mm-hmm. wala loolu loolu li laa bëgg a xam ndax yow dafa am koo xamante ne mooy sa rôle modèle wala yow da ngay génne sa feemu bopp rek yow fu la neex rek ngay génne loolu existe na comme loolu am na. Mhm. waaye man suma rôle dee boobu la. Mhm. man du ma roy si kenn. damaa def suma own thing lu ma. fiil nii moo ma neex lu ma fiil pour sol wala lu ma fiil pour def. Mhm. man loolu lay def waaye du ma seen ok kii lii lay def man tamit loolu lay def noonu. just believe in yourself. Eh, gumal sa bopp waaw léegi leer na mm. ña ko coppiwut kenn moom dafay créer boppam di sanseel boppam waaye lenn rek xam naa ko ci yow xale mm. faramaren nga loolu moom neex na <laughs> léegi nag dañoo tàggatoo rek ñi seetaan nga joxe sa final word mm-hmm. laataa ñuy joxe numéro yi waat rek su ko defee ku la bëgg a jot rek laal ok mm. maa ngi gërëm Aïcha yow di la sant yow tamit yaa ngi def lu nice ñëpp apprécié nañ ko xam nga mm-hmm. maa ngi gërëm Gambie yëpp suma customers yi. Mm-hmm. waaw si julli bi nag bari na disappoint. c'est ça waaw yéen loolu moo yaax a ñëw kat. waaw déedéet da ngeen te digg boo xam ne mm-hmm. foog loolu noonu am. Mm-hmm. maa ngi apologize dafa am suma benn customer nag foog ma apologize ko. mais léegi gàcce <laughs> boobu kon nag apologize am naa su boobaa léegi xol bi dina ji. Aïda Konté mhm. maa ngi ko apologise moom foog ma apologise waaw léegi Aïda léegi Aïda léegi ñu ngi laa apologise léegi jaarale naa ko si man léegi xam naa ne léegi war na laa mën a baala thank you so much ña ngi ko foog xam ne ñun nag kontaan nañ parce que ñun dañ fi nekk pour dimbale leen yéen euh, Gambia dafa war a dem si kanam te ñu ngee ñaan yàlla Gambia ñu fi ñu ko séentu rek mu àgga fa insha allah thank you so much seen programme yi loo yëngu woon rek comme niñ ko faral di defee xaar leen ma rek suma benn épisode comme niñ ko faral di defee te subscribe your thumbs up and then leave your comments ña nga ko fi teewoon rek thank you so much and bye bye.